di leen gërëm mbégte bu yaa Mouhamed Ndiaye nekk premier adjoint bu commune bu Golf Sud Mouhamed ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci nu ñu nangule invitation bi. di leen jaajëfal bu baax a baax ci invitation bi. Mhm. alors comme ni ko waxee rek ci njëlbeen euh, commune bu Golf Sud la ñuy daal di waxtaanee. Mhm. Euh, ki nga xam ni moom moo di Mouhamed tey euh, commune bu Golf Sud tey lan lañ mën jàpp noonu tey ci commune bi loo xam ne. Euh, taarix la ba ngeen jëlee mairie bi ba tey loo xam ne liggéey la yoo xam ne door ngeen ko ci commune bi. voilà merci euh, Mbemba moi je pense que balaa may ñëw sax ci li nga xamante ni jot nañ ko def ci commune bi. Mhm. Euh, damay indi njaalu commune bi au nom de madame la maire. Mhm. Aïssatou Sow Diawara. Mhm. honorable député. ci ñi nga xamante ni génnoon nañ àdduna ci manifestation yi nga xamante ni am na yàggul dara. Euh, ñi génn àdduna ñu leen di ñaanal yàlla yàlla xaare leen àjjana euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy blessé aussi yàlla dimbali leen aussi bañ may leen tànn bañ mën a delluwaat seen kër yi. Euh, balaa may ñëwaat aussi tamit ci li nga xamante ni liggéey nañ ko depuis ba ñu nekkee 2014 à nos jours. la commune de Golf Sud incarne une gestion participative et inclusive. pourquoi ma wax ko. parce que depuis notre accession en 2014. ba ñu njëkkee ñëw dañoo njëkk a xalaat ni ñun kat. war nañ mën a installer ay conseil de quartier. Mhm. pour que information yi jàllale. Mhm. wala les problèmes yi nga xamante ne mi ngi am au niveau des quartiers. Mhm. ñu koy mën di sentir. parce que boo xoolee Golf Sud ci loolu laa waroon njëkkee sax. c'est pas une petite commune. parce que ma defal la une petite présentation. de la commune sax pour que am na 36 quartiers. au niveau de la commune de Golf Sud. kon donc c'est pas une petite commune. donc pour faire passer wala ngay mën a xam yenn problème yi nga xamante ne moom mooy am ci quartier yi. Mhm. kon dina jaadu vraiment nga teg ay conseil de quartier. Mhm. pour que ñooñu nga xamante ni loolu moo nekkoon seen premier jalon yi ngeen teg ci commune bi looloo nekkoon suñu premier jalon bi ñu mhm. teg. on a installé 36 conseils de quartier. au niveau de la commune. mais sur les 36 conseils de quartier aussi tamit bu ci nekk couche bu ci nekk. représenté na ko. tey jii nii bañ koy def dañoo toog waxtaan avec un comité scientifique. ñu teg benn TDR. TDR bi mooy képp ku nga xam conseil de quartier bu ci nekk noonu la war a doxee ak ñan ak ñoo ci war a bokk. ba ñu ñëwee aussi tamit lañ jëkk a wax mooy. composition bi ñii la war a doon. mooy le délégué de quartier l'imam euh, le curé. wala le représentant du catholique. y a aussi l'ASC à travers la jeunesse. y aussi les bàjjenu gox ak aussi groupement féminin yi ak les handicapés. ak aussi tamit de personnes ressources yi nga xamante ni nekk nañ ci quartier bi. bu ñu leen jàppee ni ñooñu nécessité nañ pour ñu boole leen ci ñu boole leen ci kon donc ce qui veut ci quartier bu ñu dugg aussi tamit bàyyi wuñ yi nga xamante ni moom moo fa nekk te jàpp nañ ni bu ñu jaaree ci ñooñu aussi tamit l'information wala les problèmes que rencontre le quartier dina yegg aussi tamit au niveau de la municipalité xayma 2014 ba tey lan ngeen jàpp ni yéen tey euh, ba ngeen sancee yooyu conseil de quartier lan ngeen ci am tey ay résultats yoo xam ne génne génn am ngeen ko yi nga xamante ni am nañ conseil de quartier ñoom dañoo autonome malgré que parce que mën naa joxe exemple benn conseil de quartier wala ñaari conseil de quartier yu nga xamante ñoom bañ leen installé ñoom si la ñu waxtaan seen biir xool quartier bi ñu nekk ñaata maison moom moo fa nekk. faire cotiser quand même les maisons ku ci nekk mille francs mille francs xaaruñu ñu sax pour l'éclairage public. pour wax ni ñoom aussi tamit def nañ loolu noonu vraiment pour jàppale ko la municipalité mhm. c'est le lieu vraiment de les remercier au nom de de la municipalité mhm. mais sachez que conseil de quartier bu ñu koy teg c'est juste que pour que ñoom ñu mën a représenté la collectivité dans leur quartier mhm. ba aussi tamit la collectivité lépp lu nga xamante ni da koy jàlle comme information wala lépp lu nga xamante ni da koy def comme don aussi tamit il va passer par les conseils de quartier pour que vraiment mu mën a visible mhm. loolu aussi tamit je pense que def nañ ko ak ñoom mhm. te am na résultat yu nga xamante ni aussi tamit am nañ ko mhm. ba tout récemment avec euh, l'honorable député maire on a pensé redynamiser ces conseils de quartier. Mhm. lan ngeen lan ngeen ci bëgg a joyanti encore. non non ci dara. parce que ñoom aussi dañuy liggéey ak ñoom. mais ñuy gën a mën a taxaw gën a jege la population. parce que souvent la population nous dit que jotuñu yenn information jotuñu yenn information yi. Mhm. kon si le lieu en mhm. tant que collectivité. ñu woowaat les conseils de quartier waxtaan ak ñoom. pour que vraiment information yi ñuy am. au niveau euh, euh, de la commune. Mhm. ñoom aussi tamit. à leur base tax info bi du jàll. info bi du jàll. waaw mais ñun parce que ñun lépp lu ñuy def. Mhm. ñun yàlla dogal nañu ba lépp lu ñuy def euh, dañoo am page Facebook am nañu aussi tamit site internet uniquement pour bëgg information bi di jàll. Mhm. am nañu aussi tamit ay conseil de quartier parce que ñoom ñooy suñuy relais. au niveau du quartier. pour que à chaque fois s'il y a des informations à partager ñoom aussi ñu koy partager. Mhm. buñ ni redynamiser aussi tamit dañuy waxtaanaat xoolaat aussi tamit nan lañ gën a mën a ñoŋalee liggéey bi. Mhm. pour que vraiment information buy am. Mhm. wala réalisation bu ñu def aussi tamit. les quartiers la base mën a xam ni vraiment on a fait ceci. comme comme comme ñu nga ko conseil ndaw ñi nga waxee. dañuy foofu rek dañuy jaar waxtaanee ci li nga xam ne moom moo jëm ci xëyub ndaw ñi. Euh, ca commune ba ndax mën nañ am ay xayma goo xam ne itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi ñu ngi jàpp ci dara. voilà loolu moom je pense que question boobu noonu dinaa ci sawar tontu trop parce que réunion bi ma jógee démb rek ci wàllum xëy yu ndaw ñi lañu doon wax. Mhm. Euh, bi nga xamante ni représentant naa fa l'honorable député maire muy CRD bi amoon. Euh, fii ci chambre de commerce. Mhm. xam te c'était sur la supervision de monsieur le gouverneur. Mhm. loolu lañ fa doon waxtaanee. donc te jàpp nañ ni aussi tamit changement dina am. parce que y avait tous les directeurs généraux yi nga xamante ni tey ñoom ñoo gérer wàllum emploi wu ndaw ñi. mën naa ci citer DER. mën naa ci citer AMPEJ mën naa ci citer f PT 3FPT pour euh, mhm. formation mën naa ci citer tamit ONFP mën mhm. naa ci citer aussi bëri woon na agence yi fa nekk bëri na mhm. aussi tamit directeur d' agence nga xamante ne ñoo ngi fa woon ASP aussi tamit ñoom ñëpp a ngi fa woon ku ci nekk aussi tamit exposé nga wax nga ne carrément pare nga pour accompagner le président de la République pour que vraiment ñu mën a caser ndaw ñi nga xamante ne ñoo fi nekk mais au niveau de notre département aussi tamit jàpp nañ ni la plupart des jeunes ñoom aussi tamit ñoo ngi am xëy malgré que amuñu xëy yi nga xamante ne tamit peut-être moom lañ souhaité woon mais ku ci nekk yaa ngi jàpp ci dara

beneen quartier bu dul Golf Sud bu dul commune Golf Sud te ñoom ñëpp fa la ñuy liggéeyee fa la ñuy xëy fa la ñuy liggéey mhm. rési bi nga xamante ne yoroon nañ ko rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk di bale tali bi nekk di bale tali bi wala ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci marché yi mhm. wala ñi nekk ci école yi wala ñi nekk ci yeneen service yu nga xamante ne dañ leen fa affecté mhm. ñooñ rek buñ ko xaymaa rek bari na trop mais des fois dañuy wax ni payoor gi yéen seen ci mairie yi duy xaw a gaaw loolu moo tax ñu si bari rek buñ demee ba sóobu ci dañuy mujj rocceekuwaat waaw ñun moom on touche du au de la commune de Golf Sud suñu payoor musul tardé te musuñoo toog weer aussi tamit te ñu salaire hmm. loolu moom yàlla dimbali nañu ci depuis bañ fi nekkee ba tey musuñoo toog weer te duñu fay salaire hmm. loolu vraiment aussi tamit ñu ci encouragé di ci remercier vraiment madame la maire ci démarche bi mu am mais di remercier aussi tamit les agents de recouvrement mhm. parce que si une fois bu fekkee ne recouvrement bi liggéeyuñ ko woon comme ni ñu ko war a liggéey mhm. pour agent yi mën a fayeeku dina doon lu nga mhm. xamante ne lu jafe la loolu aussi tamit ñoo ngi ko ci remercier bu baax a baax mais di encourager waat aussi tamit les agents de recouvrement pour que vraiment ñoom aussi tamit ñu gën a ñoŋal liggéey bi pour que vraiment yeneen ndaw aussi tamit yeneen ndaw aussi tamit vraiment mën ci bénéficier wu pour que vraiment sànq junjoon nga li nga xam ni moom moo jëm ci ay initiative yi nga xam ni doon ngeen ko indi ci commune bi alors tey ñuy dem tey lan lañ mën a jàpp ni tey commune bi depuis 2014 loo xam ne teg na ko foofu ci biir ñu xam ni lii yéen ba ngeen ñëwee mille 2014 ba tey yéen yéen a ko fa def lan la lañ lañ ci mën a jàpp tey. voilà ñu ci mën a jàpp bari na. parce que bu ci nekk mën naa ko jël. Euh, secteur par secteur. ñu dooree ko ci wàllum infrastructure. ci biir commune bi lu ci nekk dinaa ko jël secteur par secteur. bismillah parce que. Mhm. je vais commencer par le secteur de l'éducation. mm boo xoolee Golf Sud. Mhm. yàlla dogal na mi ngi am quatorze écoles élémentaires yi nga xamante ne moom la ñuy gérer. Mhm. mais sur les quatorze élémentaires aussi tamit nous avons quatre-vingt-un écoles privées mais ñun li ñu intéressé. Mhm. nekk suñu ressort moom mooy les quatorze écoles euh, primaires. Mmh. mais depuis ba ñu ñëwee ba tey yaakaar naa ne école ubbeegul ba rencontré wuñ les directeurs d'école laaj leen seen besoin d'expression. sur ce si la ñuy joxee ñoom li nga xamante ni loolu lañu bëgg. ba mhm. liggéey bi du tardé. sur les quatorze écoles primaires aussi tamit on a réhabilité quelques école mais balaa may ñëw ci réalisation quelques mhm. école yi ñu réalisé. Mhm. dinaa la wax lan ak lan def ci écoles yi d' abord ba pare. benn bi mooy. chaque année dinañ doter les élèves de fourniture scolaire. école bu ci nekk aussi tamit teg nañ fa benn gardien teg nañ fa aussi tamit femme de charge yu nga xamante ni c' est la charge de la municipalité. am nañ photocopieuse aussi bu mag ak ay ram de papier yu nga xamante ni ñoom moom la ñuy liggéeyee parce que temps dañ doon wax naan bu ñu amee essai parce que léegi jàng bi développé na ba léegi xale ci ay këyit lañuy ñuy jàngee dañ koy imprimer tirer et tout mais ñun dañ leen di doter vraiment des cartons de rame de papier pour que vraiment bu ñu amee essai wala dara ñuy bañ demande demander les parents moom mooy ay xaalis bi ñu leen di demander. Mhm. pour mën a def seen photocopie yeeg yooyu noonu. Mhm. dañ leen jox aussi craie. leen jox aussi tamit seen jumtuwaay yi ñu soxla yépp pour que du ñu am benn problème. Mhm. loolu lu ñuy def la avec les directeurs d' beneen bi aussi mooy. Mhm. école yi nga xamante ni réhabilité nañ ko. Mhm. dinaa ci ñëw parce que depuis ba ñuy doog a ñëw en 2014 boo xoolee école PAZ muy unité 4 toit yi dafa nekkoon ci état bu délabré. ba ñu njëkkee ñëw loolu la njëkk a xalaat. xayma ko defar ko mais néanmoins ba léegi nii dañ ko war a defaraat parce que boole nañ ko ci benn projet bu nga xamante ni moom la tuddee projet PACASEN. loolu dinañ ko réhabilité pakesen bi di fàttali ni dañ lay jox benn euh, projet boo xam ne yaay xool yéen li ngeen ci bëgg loolu dinaa si ñëw mhm, acca loolu dinaa si ñëw mhm. c'est juste pour wax la ba ñu njëkkee ñëw li njëkk a réhabilité mooy école PAZ mhm. muy unité 4 ba ñu fa jógee aussi tamit le maire école golf nord boobu ngay dégg nii mu nekk à Guédiawaye boobu aussi tamit comme suñu domaine la nekk classes yi nekkee noonu yëpp trois classes yi nga xamante ni c'était des classes yi utiliser tuñ ko woon réhabilité nañ ko defar ko carrément ba mu baax. Mhm. beneen bi aussi mooy au niveau de l' amoo deux boobu aussi tamit amul woon euh, maison directeur. Mhm. amul woon aussi tamit euh, ñi nga xamante ni fa lañ enseignants yi fa lañ war a mën a nekk ak maison gardien. am fa woon mhm. boobu aussi tamit yàlla dimbal nañu ba ñun ñu def ko foof noonu. niñ ko defee foofu tamit noonu lañ ko defee école PA. Y PAZ. bi nga xam ne moom mooy unité 4. tabax fa maison gardien bi nga xamante ne gardien bi dina fa mën a nekk tranquillement mettre leen vraiment à l'aise yooyu mooy école yi nga xamante ne réhabilité nañ ko mais à l'heure où je vous parle avec le projet PACASEN ba ñu laajee lan lañ bëgg xayma dañ leen ñun kat nañu defaral suñu ñett école parce que chaque année yow yaay tànn projet yooy joxe loolu la ñuy wax euh, euh, euh, PAI yi mooy plan annuel d'investissement dafa am PTI mooy plan triennal d' investissement ak plan annuel d' suñu plan annuel d' bi nga xam te ne moom moo passé c' la réhabilitation des écoles. Okay. et on avait choisi des écoles. Mhm. à réhabiliter ngeen ci tànn. waaw fu ngeen ci toll pour l' mhm. benn bi mooy UNESCO amoo trois beneen bi mooy Seydou Nourou Tall beneen bi mooy PAZ comme ni ma ko waxee sànq. Mhm. yooyu noonu yaakaar naa ne liggéey bi door na. bu doorul tamit installé nañ panneau de chantier yi pour wane ni liggéey bi day door. parce que commencé woon nañ fële na le mais ak Covid bi. empêché woon na nit ñi aussi tamit ñu mën a liggéey tranquillement mais jàppoon nañ ne année passée. loolu noonu lañ ko waroon réaliser mu jeex. mais néanmoins c'est en cours ba léegi nii ñoo ngi ci. te incha allah yaakaar naa ni balaa muñ yàgg aussi tamit dinañ ko dinañ ko defar. ba euh, tey lu gën a jàmp kon. ci euh, li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum école yi. foofu lay ñëw. Mhm. beneen bi aussi mooy au niveau de l'école Adolphe Diagne. boobu aussi tamit réaliser nañ ko totalement rénovation totale lañu def. Mhm. c'est le lieu aussi de remercier un digne fils de Golf Sud un nommé Diawara Boubacar. nga xamante ni moom moo ñu mettre en rapport avec des partenaires français ñu tudd Feeling Up la mairie boole ko woon même si budget am boole ko woon même ci PACASEN mais on l'a réaliser avec des partenaires yu nga xamante ni ñoom ñoo ñu jàppale financièrement. Mhm. moom aussi ñu koy remercier bu baax a baax parce que jàpp naa ni képp ku dëkk golf bu defoon noonu yaakaar naa ni golf dina gën a mën a avancement bi dina war a mën a gën a gaaw génneewuñ ci cent franc partenaires yi ñoom ñoo ñu ko réaliser totalement. Mm-hmm. muy toiture di sol bi di pe peinture totale réhabilitation totale lañu def ci école boobu noonu. Mm-hmm. te partenaires yi convention bi ñu signé ak ñoom c' est pour que ñu réaliser ñu les quatorze écoles de la commune. Mm-hmm. plus les trois terrains. Euh, de basket de la commune à savoir le terrain de golf terrain bi nekk Las Palmas ak terrain bi nekk Eco loolu la ñu war a réaliser. Mhm. mais comme partenaire aussi tamit balaa ñuy ñëw di réaliser gros travaux yooyu noonu aussi tamit dañ lay laaj phase test ba pare. Mhm. ñun nag suñu phase test on a pris l' école Adolphe Diagne on l'a réhabilité complètement des na aussi tamit le terrain de Golf Sud. bi nga xamante ni moom moo nekk foofu noonu boobu tamit dinañ ko réaliser tout récemment pour mën a accentuer ci phase 2 bi parce que phase 2 boobu noonu nag si lañ bëgg a yeneen écoles yi nga xamante moom moo des muy PAY ak yeneen écoles yi nga xamante ni moom moo nekk au niveau de la commune de Golf Sud mhm. je pense que looloo tax jumtuwaay bi nga xamante maire mi ngi am ci côté directeur yi ak côté élèves école mhm. moom moo tax vraiment bu ñu demee examen aussi tamit dañuy gis ni Golf Sud tout le temps moom mooy jël première mhm. te loolu aussi tamit vraiment ñu ci mhm. remercier di ci féliciter vraiment les directeurs d'école bu baax am na lu gën a jàmp tey li ngeen war a def ci l'école yi lan la lu gën a jàmp lu ñu war a def ci école yi pratiquement ñoo ngi liggéey ci école yi présentement ñoo ngi nekk en chantier sur trois écoles te buñ ci paree aussi tamit avec la phase deux incha allah nañ yeggale yeneen écoles yi nga xamante ni moom moo des ci wàllum fu ngeen ci toll ak lan ngeen def ay jumtuwaay yoo xam ne nit mun na koo tegee gis ko ne lii yéen yéen a ko def. ci wàllum paj voilà ci wàllum paj moom lu may wax moom mooy damay dañuy santaat yàlla bu baax a baax. Mm. parce que boo xoolee Golf Sud quatre postes de santé la am quatre postes de santé. Mm-hmm. ak benn hôpital Dalal Jàmm mais ñun li ñu intéressé mooy les quatre postes de santé. Mm-hmm. quatre postes de santé aussi tamit c'est le lieu de de de remercier au nom de madame le maire. yaa ngi remercier les infirmiers chefs de mhm. poste. Mhm. parce que ñoom aussi tamit ñoom ñooy suñu bras. Mhm. ci côté santé. parce que ñoom ñooy suñu conseil technique ci côté santé. li ñu fa def. bari na parce que madame la maire nekkul 2014 kase la nekk maire c'était en 2009. en 2014 dafa rampé. mais en 2009 ba 2014 ba mu fi nekkee je pense que moom moo réhabilité. maternité wu fiñ mi loolu ci premier mandat bi mais ñun ba ñu ñëwee aussi tamit ci suñu accession en en 2014. maternité bi nekk poste de santé Golf Sud ñun ñoo ko def inauguré ko. jàpp na ci aussi bu baax a baax am na aussi tamit ay bonne volonté aussi tamit yu ci jàpp bu baax a baax. mais taxawaayam bari na ci bu baax a baax. beneen bi mooy on est en de construire la maternité de l'unité 4. école bi et moo koy def de santé unité 4 waaw sur fonds propres. Mhm. parce que jàpp nañ ni doléance su population bi lañ déglu. Mhm. mooy souvent dañ fay dem ñi nga xamante ni dañoo wan na lor dañ fay dem di consulter wu di consulter wu ba am neuf mois dem juddoo feneen ñoom tamit ñu jàpp ni war nañ leen mën a defal maternité. Mhm. ba ñaxee wax ak ñun aussi tamit ñu xalaat ci loolu waxtaan ko délibéré ko vraiment ba liggéey boobu tamit door na. Mhm. te incha allah ñoo ngi ñaan yàlla ko du yàgg dara tamit ñu inauguré maternité bi nga xamante ni moom moo am. beneen bi mooy. médicament dañ leen koy doter tout le temps chaque année dañ leen dote seen médicament les quatre postes de santé. Mhm. benn mooy yàlla dimbali nañu aussi tamit ba trois postes de santé yi. Mhm. sur sur quatre. Mhm. trois yëpp am nañ benn am nañ ambulance. donc amu leen problème foofu ci commune bi ci wàllum paj non problème munul ñàkk munul ñàkk mais li nga xamante ni ñun xam nañ ko mën kaa def ñoo ngi koy def li ñu munul aussi tamit ñoo ngi koy uti ji ci kaw. parce que ñun tey jii le maire vision bi mu amoon ci unité 4. Mhm. poste de santé unité 4 moo doon mu def ko centre de santé. fu ngeen ci tollu mi ngi ci parce que mi ngi ci doon waxtaan du temps de. Euh, Eva le ministre voilà mm -hmm. Eva Marie Coll Seck ak euh, le ministre Amadou Ba. Mhm. waxtaanoon nañ ci ba avancé woon nañ ci. Mhm. mais xam nga ak yi yi jot a xew. moom moo tax loolu ñu teg ko ci suuf en attendant. mais néanmoins dossier bi mi ngi suivre son cours. ba léegi nii. ñoo ngi tabax aussi tamit maternité. pour mhm. que vraiment ñi nga xam te ne ñoom ñoo fay nekk tamit ñu mën leen dalal. ci li jot a xew loolu coronavirus bi nga bëggoon a junj. est-ce que tey euh, yéen seen mairie bi ci wàllum paj génne na ay moyens yoo xam ne ngir mën a xeex ak jàngoro ji laata ñuy dugg ci yeneen ponk. non man je pense que suñu mairie li mu def ci ci ci ci ci corona bi bari na trop. bari na trop te je pense que ñëpp ñu ñuy suivre aussi tamit sur nos pages Facebook. Mhm. wala ñu ñuy suivre vraiment sur l'internet. xam nañ ni carrément li ñu def bari na. lu ngeen jukki ci koppar ba mun a xeex. li ñu njëkk def. Mhm. li ñu njëkk def. Mhm. depuis ba ñu déggee première cas bi ñu woote à la ville de Guédiawaye. Mhm. ba ñu ñëwee le maire dafa woote au niveau communal. ñu monter un communal. sanitaire boobu ñi ko composé mooy les couches yi nga xamante ne moom moo représenté la commune. à savoir les délégués de les délégués de quartier. les imams les bajenu gox. les ASC les groupements. féminin mhm. représentant catholique yi mhm. maanaam handicapé yi sapeur mhm. maanaam couche yi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo fa nekk ñoom ñëpp ñoom ñoo nekk ci biir comité communal bi bañ taxawee loolu aussi tamit le maire mu initier vraiment ni comité yooyu nga xamante ne am nañ ko au niveau communal ak au niveau départemental nañ ko wàccee au niveau des quartiers au niveau de la base autour de chaque délégué de quartier ñu créé fa benn comité de veille et d' alerte sanitaire pour un temps on a cent jeunes sur les quatre postes de santé. ñu dugg ci biir nit ñi. di waxtaan ak nit ñi sensibiliser nit ñi jox leen masque jox leen gel. en gros li nga xamante ni génne nañ ko ci masque ba tey jii nii ñoo ngi joxe masque. on est plus de trente mille quarante mille masques. gel mënuñu xam ñaata lañ joxe. parce que lépp lu ñuy joxe aussi tamit mooy li ma la doon wax nit ku ci nekk aussi tamit day am ñu nga xamante ni ñoom ñoo koy toogal. Mhm. lu ñu joxe tamit am na la nga xamante mën nañ ko joxe directement mhm. mais am na la nga xamante tamit danga nga koy wàccee à la base pour que mhm. jox ko comité yi nga xamante ne yaa leen mettre en place mhm. ñu toogal la fa donc ngir woyal ci ponk boobu mais gis nañ ni mesure de restriction yi levé nañ ko mais jàngoro ji ba tey mi ngi fii ndax yéen seen mairie mi ngi woy ci sensibilisation yi ba tey ci jàngoro yi covid coronavirus bi loolu ñoo ngi koy def ba tey jii nii ba tey jii nii parce que tout récemment euh, daje nañ avec les gox daje nañ aussi tamit avec les imams. Mhm. il y a aussi des partenaires yoo xamante ne aussi tamit ñoo ngi liggéey ak ñun ci coté sensibilisation. Mhm. tu ñi mujjee daje ak maire rek. avec le bureau municipal madame la maire jox na leen lu mat mille masques pour ñu wàccee ko à la base. ba tey nii. ba tey nii ngeen mun a xeex ak Covid bi. ba tey pour ñu mën a xeex ak Covid bi. Mhm. ba tey nii bàyyeeguñu. parce que on a mis en place un comité. bu nga xamante ne war nañoo wàccaat saytuwaat. waxtaan ak nit ñi gën leen sensibiliser parce que ñun jàpp nañ ne feebar bi jeexu fi. Mhm. te feebar du fi mës a jeex. Mhm. ñu ne vaccin moom mooy solution vaccin vaccin bi ñëw na. Mhm. ndax yéen itam seen commune bi ngeen jiite eh, yéen a ngi ñaax itam askan wi ngir ñu dem vacciné wu ndax jàpp nañ ni eh, boobu ba léegi moom moo fi nekk solution. waaw pour vaccination yi je pense que dañuy remercier bu baax a baax. yaa ngi remercier rek daa mel ni yéen seen commune bi lépp gongole. non dañuy remercier autorité yi. Mhm. pourquoi ma ne dañuy remercier autorités yi parce que ba loolu ñëwee. Mhm. ñoom ñoo ci njëkk dugal seeni seeni seen i seen i seen bopp. pour mhm. wane ni vaccin yi amul lenn ñoom ñoo njëkk dem vacciné wu. à l'heure actuelle. où je vous parle au niveau de la commune de Golf Sud. sur les quatre postes de santé vaccination mi ngi jaar. ci yoon am na nag ñu des parce que post bu ci nekk. dafa am nombre bu ñu la doté bu war a ñëw vacciné wu. am na nag yu nga xamante ni des na ñëwaguñ mais sensibilisation bi tamit nee mooy ñu ngi koy continuer ba léegi nii. Mhm. parce que bàyyee bàyyeeguñ ko. Mhm. parce que ñu ngi koy continuer ba léegi nii. Mhm. pour que nit ñi vraiment mën a dem vacciner wu ji. jàpp seen kii. est-ce que mun nañ xayma nombre bi nga xam ne def ngeen ko si seen commune ñi ñuy vacciné wala yoroo statistiques yi. non si mu si yor yi. parce que boo xoolee sur les quatre postes de santé. Parcelles Assainies ñu ñëw vacciné wu. mais il y a cent quatre vingt dix. Mhm. faible na de ñoo ñëw vacciné mhm. dont quinze pour cent. faible na looloo tax ñu ñuy continuer sensibilisation bi. Mhm. parce que on a des relais yu nga xamante ne tey jii nii nañ leen en place pour que ñuy jàllale loolu noonu à travers euh, les délégués de quartier. au niveau aussi de du poste de santé de Fidmik. nous avons six cent soixante neuf yu nga xamante ne ñoo ngi leen doon xaar. sur les six cent soixante neuf je pense que boobu aussi tamit yàlla dimbali nañu ba. ba ba nit ñi boobu ñoo ngi dem. Mhm. di vacciné wu ji. Mhm. Mhm. carrément parce que sur les six cent soixante neuf quatre cent un. dem nañ vacciné wu ji. ok donc ci benn pourcentage bu soixante virgule huit pour cent. au niveau de du poste de santé de Las Palmas. boobu aussi tamit dañu leen di parce que sur trois cent soixante dix il deux cent quatre vingt quatorze ñoom ñoo dem. kon ñu ngi génn. ñoo ngi génn ndànk-ndànk parce que xamuñu woon. mais ñoo ngi génn ndànk-ndànk mhm. parce que ñun aussi tamit yemoon lay wuñ mhm. sensibilisation bi tout simplement ci loolu ndax jàpp nañ ni mhm. ñëpp dañoo war a dem vacciné wu parce que bu njëkk dañ doon wax soixante ans yi mais ñoo ngi leen di gën a waxtaan ak ñoom di pour que ñoom aussi tamit vraiment ñu gën a mën a jël conscience am na solo am na solo mbokk yi seen émission gox bi di dalal tey ki nga xam ni moom moo di Mouhamed Ndiaye nekk premier adjoint bu commune bu Golf Sud euh, ngir nag bëgg bokk ci waxtaan bi mun ngeen a dugg ci 88 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 alors yaa ngi doon am ci ay pàcc yu am solo yi nga xam ne ci nga nekkoon wax nga ci wàllum pàcc école bi waa léegi mbirum électricité bi yéen fu ngeen ci toll yéen. électricité bi tamit dañuy sant yàlla bu baax. parce que nous c'est le lieu vraiment de de remercier aussi le maire de la ville de Guédiawaye. Mm-hmm. parce que jàppale nañu bu baax a baax. Mm-hmm. ci électricité yi mhm. mais aussi tamit def nañ ci effort bu mag a mag a mag mag ñun ñun aussi au niveau de la commune de mhm. Golf Sud mhm. te ci effort yooyu ñu def aussi tamit sànq maa ngi la doon wax benn partenariat bu nga xamante ne am nañ ko avec euh, un partenaire Feeling Up français euh, ñoom aussi tamit pare nañ pour doter ñu deux mille lampadaires ci commune bi ci commune bi donc te incessamment yaakaar nañ dañu réceptionner quelque pour la première phase pour que vraiment ñu gën a mën a renforcer mm-hmm. Mm-hmm. les quartiers mm-hmm. parce que ñun tamit ba ñuy ñëw tamit pour wax dëgg rek quartiers yi lëndëmoon na trop ay ah, est-ce que quartiers yi lëndëmul ba tey non bu amee lu lëndëm tamit bareetul mais lëndëmoon na de sorte que pour génnoon sax ñuy jooytu eh, ñàkkum euh, euh, mbirum électricité ca commune bu Golf Sud bëri na de mais ñun buñ ko yégee ñu ko yégee balaa muy mat vingt quatre heures dinañ yónni ay techniciens ñoom ñu jéem a lool lan la ñu jéem a xool loolu nan lañ koy saafara. ah luy waral lool luy waral lool mais souvent loolu peut-être problème technique la <laughs> parce que man je ne suis pas technicien wu <laughs> kii yooyu. mais mhm. jàpp naa ne problème technique la. Mhm. mais si une ñu woo un technicien. Mhm. du yàgg dara ñu defaraat ko. lam mu mu tàkkaat. ñu bari ci commune bi dañuy jooytu ne euh, VDN bi ci li ko gën a sori. foofu euh, moom gis euh, lu tàkk moom lu lu fa lu fa tumuranke la. waaw VDN 3 bi xam nga luñ ci war a xam mooy projet état la. te ñun aussi tamit loolu ñun réceptionné guñ ko sa à dire ñi nga xam te ne ñoom ñoo ko liggéey ba mu toll foofu tey leen ko mais mun ngeen ci def ay jéego yi. li nga xam te ne tey ñoom mu toll ba foofu tey mooy Ageroute. Mhm. nga xamante ne ñoom ñoo génnee seen i installation yooyu. Mhm. jàpp nañ ni loolu ñoom ñoo ko war a def parce que ñun. Mhm. ñëwagul si suñuy loxo. waaye sañ ngeen tamit laajte. sañ nañ tamit laajte te nee mooy ñoo ngi laajte. ñoo ngi laajte parce que wax ngeen ko wax askan wi non lépp lu fa am mhm. lépp lu fa am lépp lu fa am ci ñun lay dellusiwaat tamit ñoo ngi leen di lancer waale un appel solennel mhm. vraiment pour que ñu ñëw dimbali ñu ci VDN 3 boobu noonu mhm. mais bu fekkoon nañ ko mu nekkoon à notre portée je pense que problème yi nii rek est que yéen a ngi wàcc di xool jafe-jafe yi askan wi di dund ci ci ci wàllu woobu parce que ñu koy jooytu bëri na ah. mais ñun ay ndaw lañ ay ndaw lañ dañuy dox foofu noonu dañuy dox guddi gi dañ mm. fay nekk et tout. def ngeen constat bi def nañ constat bi mm-hmm. mais aussi tamit ñoo ngi koy joytu aussi tamit fi ñu ko war a joytoo pour que vraiment ñoom tamit ñu mën ñu dimbali. est-ce que yéexul non bu yéexee tamit ñun ñoo ngi koy joytu parce que aussi tamit loolu lañu ñu fa tegee hmm. yaakaar lañ ñu fa tegee mais ñun aussi tamit hmm. yaakaar googu noonu war nañ mën a wax ñi ñu war a waxal hmm. pour que vraiment ñooñu aussi tamit ñu mën ñu dimbali mais yéen a ngi wax yéen a ngi trouver ay partenaires euh, deux mille euh, lampadaires yi ngeen di xaar waaw est ce que tey loolu mënu mënu leen ko baral ndax askan wi itam mën ci gis seen bopp ci wàllu woowu waaw waaw mais wàllu woowu noonu xalaat nañ ko pour gën a soulager la population mais soulager nañ leen parce que vraiment quartier bu ci nekk aussi tamit am na ay lampes pour dire vrai quartier bu ci nekk am na ay. kon tey bu ma la déggee quartier bu nga xam ni moom moo nekk ci commune bu Golf am na mi ngi tàkk lamp yi mi ngi tàkk. jàpp nañ ni mi ngi tàkk parce que ñun aussi ah, na lu des. ni dina manqué. Mhm. que ñun aussi bu ñu xalaatee indiwaat 2000 pour renforcer ko. Mhm. c'est parce que pour gën leen mën a soulager. ñu mhm. gën a mën a nekk ci ci ci jàmm. looloo tax mais jàpp nañ ni quartier yi nga xamante ni yëpp jàpp nañ ni jaar nañ fa mhm. mi ngi tàkk te aussi tamit nos techniciens bu fekkee tàkkul aussi tamit dinañu def signe carrément ne ñu tel quartier tàkkul mhm. Mhm. les conseils de quartier aussi tamit dinañu woo ne ñu tel quartier tàkkul tel quartier tàkkul ñu jéem a xool aussi tamit yan solution la ñuy déployer vraiment pour que foofu noonu mën a tàkk est-ce que waru leen mën a am équipe goo xam ne itam mën na saytu loolu muy mën a alerter ci waxtu bi ba mu jotee waaw mais équipe boobu noonu am nañ ko parce que moom mooy nos conseils de quartier yi la ni la carrément woo madame la maire ni ko madame la maire man kat sama quartier depuis démb tàkkul wala depuis bërki démb tàkkul mhm. buñ ko jotul dinañ ma woo ni ma kii fii tàkkul wala fii tàkkul bu mhm. boobaa ñun dinañ woo ñi nga xam te ne ñoom la ñu war a woo muy les techniciens mhm. ñoom aussi tamit ñu jéem a def seen liggéey parce que je que techniciens yi tamit loolu tamit seen liggéey la te je que ñoom aussi tamit ñoo ngi def comme ni mu waree ko waxee signaler leen ko du mat aussi tamit vraiment euh, kii ñoom aussi tamit dinañ réagir a baax pour que euh, lamp yi mën a tàkk ba tey rek ñu ngi ci euh, wàllum social bi yéen seen mairie fu mu ci tool parce que ñu bari dañuy jëw seen mairie bi ne ñoom du génne di jàppale askan wi dañ koy jëw bu baax bu baax naan mairie bi ñoom du ñuy génnee dara di jàppale askan wi. ndax xam lu koy dëggal la. loolu moom. Mhm. question boobu moom dama koy delloo conseil de quartier yi. certes. Mhm. population mun nañ bañ a am la bonne information la plupart de de ci population bi. Mhm. mais social ñoo ngi koy def. ah yéen a ngi def social. pourquoi je dis que ñoo ngi def social. fu ngeen ci toll waaw. Mhm. Mhm. pourquoi je di que dañuy def social. Mhm. mooy fête bu am. fête bu am. dinañ ci def suñu waar. malgré que nag mën na bari wala mën na bañ a bari mais dinañ def suñu waar. à travers les conseils de quartier comme li ma wax. xam nga bu njëkk. il paraît que dañ doon daje ci maire bi ñu koy joxe. léegi madame la maire avec son équipe. jàpp ne carrément di ko joxe nii mën nañ jàpp nii say ñi ngay àndal ngay jox wala say militant ngay jox wala lii wala laa. Mhm. léegi di ko ñu préféré di ko wàccee ci conseil de quartier bi. Mhm. conseil de quartier képp ku dëkk ci quartier bi dina xam kan moo ko yeyoo. Mhm. si une fois ñu jox ko dara dina xam kan moo ko yeyoo. bu boobaa mairie est-ce que bi mi ngi jaar ci yoon. non mais ñun côté boobu noonu. ñun nekkuñu foofu. mais lépp lu ñu leen di laaj. bu ñu leen joxee ba pare lu ñu leen di laaj mooy dañu leen wax ne leen après ñu pour wax ne kii wa kii lañ jox. loolu c'est à niveau. mais ñun pour décharger wu. tout simplement pour wax ni social bi nekkatul au niveau de la mairie typiquement mais aussi tamit am na ñu nga xamante ne tamit dañ leen di dimbali individuellement ñi ñuy dimbali individuellement mooy ñi nga xamante ne dañoo feebar ñi nga xam ne nekk nañ hôpital parce que aussi tamit nekkul lu nga xamante ne lu fa nekk la mais social bi mhm. am nañ commission bu nga xamante ne ñoom ñooy réunir pour loolu noonu mais ñiy wax ni peut-être social amul. Mhm. mais nañu dem jege tout simplement seen i conseil de quartier. ñu demandé leen bi gën a jàmp tey mooy feetu pakk yi. feetu pak yi waaw ñëw na léegi yéen seen mairie bi fan la toll ndax euh, <laughs> semaine bii la de ñu ngi ci euh, mujjanteelu semaine nu feetu pak yi. Ah. bu dee social bi ngeen di wax tey fa ngeen ci toll lan ngeen prévoir ci ñi nga xam ne ñoom ñoo war a feetu ci wàllu wi ni mel ñoom ndimbal gi fa ngeen ci toll. voilà loolu je pense que question bu may sawar a tontu la parce que mhm. semaine bi ma weesu nii rek. Mhm. le maire woo na ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñooy euh, catholique yi. Mhm. si je peux l' appeler mhm. ñi nga xamante ni fa lañ bokk. Mhm. ñu am un représentant au niveau de la commune. parce que ñoom aussi tamit dañoo am ay représentants comme imam nañu amee représentant. tigi woo na leen waxtaan ak ñoom. parce que ñun dañ doon def lii sans que sax ñuy xaar fetu Pâques jot wala dara. Mhm. parce que ñoom aussi tamit bu ñu waree réfectionner. Mhm. seen église wala ñu war a réfectionner ñu am fête. Mhm. wala dara je pense que maire aussi tamit daan ci jàpp comme ni ci war a jàppee. parce que ñoom aussi tamit organiser nañ de sorte que du nii ngay dimbale wala nii ngay dimbale parce que ñoom dañoo am seen organisation bopp. parce que il paraît que ndimbal li mhm. day jaar si CEB yi mhm. xaw ma nag CEB lan lay signifier mhm. mais ñoom ñoom ñoo ko xam Caritas yi daal fa la jëm voilà ci ñoom lay jaar ñoom aussi bu yeggee ci ñoom am nañ ñoom méthode bu ñu koy séddalee parce que ñoom ils sont bien organisés de sorte que problème boobu du am maire woo na leen semaine bi passé rek waxtaan na ak ñoom te incha allah mi ngi ci jalon yi pour teg ko le plus rapide semaine bii kay leen jëm kañ ngeen war a comment jox leen ndàmpaay gi non non ñoom comité communal yi ñoo ngi ci. Mhm. comité de quartier yi ñoo ngi ci. kon yàlla dimbal nañu bañ am. Mhm. link boobu noonu ba nga xamante ni dara du ñëw. Mhm. kon lan moo tax ñu naan dinañ leen te dinañ leen jàppale bu baax a baax te maire dina leen jàppale. kon lan moo tax ñu naan seen mairie bi sociale wala. ay nit yi génne yenn information non xam nga ñëpp. xam nga ñëpp mënuñoo wax ne ñoo ngi social. parce que foo gis aussi tamit day am ay opposition foo gis aussi tamit am ñoo xamante ni bénéficier wuñ ci. mais buñ ci bénéficier wul aussi tamit c'est pas à notre niveau. parce que ñun aussi tamit lépp lu ñu war a def ñoo ngi koy jaarale fi ñu ko war a jaarale mhm. parce que conseil de quartier yi bañ koy teg mais des na des na ñëwaat mhm. conseil de quartier yi bañ koy teg mhm. lañ leen waxoon leer na couche bu ci nekk na am ku ko représenté couche bu ci nekk bu amee ku ko représenté tey jii nii s'il y a quelque chose à faire wala bu ñu amee benn doléance wala bu ñu amee lépp lépp lu ñuy joxe foofu lañ koy jaarale ñoom aussi tamit à leur niveau. Mhm. bu ñu leen joxee aussi tamit jàpp nañ ni ñoom. Mhm. xam nañ ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko yeyoo seen quartier pour joxaat leen ko. Mhm. ñu ne seen maire bi Aïda Sow Diawara. que moom du teg tànkam lu bari golf. Euh, parce que assemblée rek lay toog. waaw di liggéey foofu te moo ne dañ ko fal fii ci gox bi mu di golf ñu ne moom bu ñëwee foofu rek yëngu-yëngu politique moom moo ko fa indi ndax la ngay dëggal la. non du ko dëggal parce que. jàpp naa ni heure buñ ko soxla au niveau de la commune mi ngi au niveau de la commune. ci wàllum politique. ci wàllum liggéey au niveau de la municipalité. Mm. ñu ne politique bi moom day wàcc ci terrain bu baax. waaw peut-être loolu tamit waxu waxu nit ñi la ko mais man li nga xamante ni jàpp naa ko ba gis ko. Mm-hmm. parce que man je suis son collaborateur. Mm-hmm. son adjoint. est-ce que du yow yaay dem fépp. maa ngi dem parce que tey jii nii dem bi may dem sax dama ko ci sant di ko gërëm parce que formation la ci man. Mm-hmm. formation la ci man. maa ngi ko ciy sant di ko gërëm parce que lu ma ci xamul woon maa ngi ko xam lu ma si jàngul woon maa ngi ko jàng kon formation la ci man mais fu fuñ ko soxla wala muy rencontre wala nit soxla ko audience wala dara malgré que calendrier am lu mu saate saate saate saate dina la jox jour ba nga xamante ne boo ñëwee di nga fa fekk mhm. te liggéey bi aussi tamit bi ñu xamante ne war nañ ko liggéey au niveau de la commune mhm. dara du tardé ñu toog di ko xaar ok mais euh, politique bi moom dafa mel ni moom bu bu rek moom si lay wàcc de moom ñoom ñoo ko askan wi ñoom ñoo ko wax ñoom ñoo ko wax parce que constat la foofu waaw peut-être askan wi loolu ñoom seen xalaat la ñu wax mais man la ma séq ak moom ci mhm. liggéey mhm. ci wàllum liggéey mhm. ci wàllum liggéey la ma séq ak moom mooy heure bu ñu ko soxlaa dana présent maanaam signature du tardé dara du tardé signature du tardé liggéey bi du tardé rencontre yi du tardé fu ñu war a assister au niveau de la municipalité dinañ fa assister loolu moom mën naa ko seedeel. moo tax gars yi bu ñu naan peut-être day kii ak yooyu noonu. aussi tamit ah da nga jàpp moo tax. non du politique parce que man ak moom mhm. Mhm. moom il est du parti man je suis de mhm. kon donc nekkul lu nga xamante ni du politique wala dara. mais li nga xamante ni lu ma gis la te war ka ko seedeel loolu tax ma koy seedeel. ok ok. seen émission gox tamit fu mu nekkul aussi tamit. ñun bu ñu fa nekkee tamit nañ ne mi ngi fa. Mm, parce que dañ ko élire comme ñun aussi tamit. nit ñu élire. mais moom nag muy gën a fës lañ gën a bëgg ñoom. waaw mais moom aussi tamit mi ngi fës fi mu war a fësee mi ngi fës fa mu war a fësee. Mhm. tey jii nii tout récemment. Mhm. semaine passée. Mhm. le mercredi passé. mi ngi doon inauguré fii nii euh, euh, au niveau du marché de Gueule Tapée. mooy kii yooyu ñu teg noonu. nga xamante ni marché de Gueule Tapée amoon na euh, fi ñuy teg mbalit yi noonu. dépotoir d'ordures yi. mais demoon na ba nga xamante ni foofu boo fa rombee dafay doy waar trop. mais avec notre collaboration avec mais tout récemment dem na fa rek doon ko inauguré le mercredi passé. ok fépp feneen tamit fu ñu ko soxla tamit. Mhm. yaakaar naa tamit elle sera présente. Mhm. donc euh, commune bi buñ nañ ne gongo. non duñ ne gongo parce que des na. Mhm. des na li des aussi tamit ñoo ngi ñaan aussi tamit tous les golfois et golfoises. ñi nga xamante ni tey jii nii. yàlla dimbali nañ leen ñu mën ñoo indil ay partenaires comme suñuy frère niñ koy defee. ñoom aussi tamit ñoo ngi leen ñaan vraiment. ñu teg maa tamit toog leen di xaar ñu di xaar. Mhm. parce que ñun aussi tamit ñoo ngi def suñu démarche di ci liggéey. Mhm. di ci waxtaan di ci xayma. Mhm. parce que ñun boo xoolee commune yi nekk ci ci ci ci Sénégal yëpp. ñi ci am PDC bariwul mooy plan de développement communal. xam naa bu may dem sax dama la kay may. baax na dinaa ci kontaan bu baax lépp luy suñu projet. lépp luy suñu programme. projet ba deux mille ba ba deux mille vingt cinq. lépp luy projet bien chiffré mi ngi ci. Mhm. junj ngeen ko xayma ngeen ko. xayma nañ ko. Mhm. mi ngi nii. Mhm. kon de xanaa golf ci émergence la jëm. loolu de lañ bëgg. yéen a ngi ci yoon bi. ñoo ngi ci yoon bi aussi. kon Mouhamed Ndiaye lañ dalal moom mooy euh, premier adjoint bu commune bu golf euh, tey ñuy waxtaan ak moom itam élection yi xam nga ni njiitu réew mi ba nu génnee ci mercredi bi rek nee na dafay yokk mandat conseil municipal yeeg départementaux yi ci randal itam li nga xam ne moom moo jëm. ci élection yi. Mhm. Euh, yow conseiller nga xaar bi yàgg na de dàq ko benn ñaar ñett ngeen di conseil xanaa ñi leen faloon sax xaw nañ ñu xaar ni léegi jot nañu tànn suñuy mer nag waaye ngeen di toog rek ba seen mandat di wéy di jeex lan moo ci sa xalaat nga comme yow conseiller nga. <laughs> waaw loolu suma xalaat du ci bari. Hmm. c'est-à-dire euh, je vais dire on peut pas vouloir une et son contraire. mooy lan. élection yi tey ji nii bu amee report bi mu am nii tey. Hmm. je pense que opposition bi am nañ ci wàll bu baax a baax. nañ nañ waxtaan d' abord ci wàllum conseil gi nga doon ba pare ci liggéey gi. après ñu ñëw ci wàllum politique bi. ñu mujjee ko <laughs> maanaam conseil yi yéen mandat lañ leen faloon mandat wu juróomi at. Mhm. jeex na askan wi ñu ne faaw ngeen able xool ñeneen ñuy toog wala da ngeen di continuer euh, lal la leen di def yéen en tant que conseil. mais ñun defuñu dara. defuñu dara. mais mhm. tey jii nii bu ñu doon élection bu doon suba aussi tamit pare nañ pour dem élection. yow sa jëmm bopp nga samp sa nënd wala e-, équipe bi. équipe bi parce que du ma ne man sama jëmmi bopp parce que man aussi tamit. Mhm. équipe lañ àndal. yow candidat nga. je suis jeune et j'ai de l' ambition. foofu laa yem sa ambition mooy lan déet. je xam nga xam nga waaw xam nga je suis jeune je suis jeune. et j'ai de l' ambition. dëgg la xam le moment venu. Mhm. dinaa xam lan la ñuy def. dinañ xam lan la ñuy def mais sachez que j'ai de l' ambition. Mhm. Voilà. pour jiite commune bi. j'ai de l' ambition. je suis jeune xam nga wax bi mais loolu noonu. waaw loolu noonu mënaguma si ñëw. mais sachez que je suis jeune. dinañ ci ñëwaat ci question bi mais ñu bàyyi la nga continuer. voilà <laughs> mhm. peut-être fi ma doon ñëw noonu. Mhm. mooy tey jii nii ci report bi am. Mhm. liñ ko mën a comprendre mooy c'est une suite logique. pourquoi je dis que c'est une suite logique après élection présidentielle yi ñu génn. je pense que opposition bi ñoom ñoo demandé woon pour que ñu auditer le fichier électoral. te fichier bi moom lañ nekk nii di auditer à nos jours. ba tey jii nii c'est en cours. beneen bi mooy am na lu ci toftalu. mooy dialogue. Mhm. national bi nga xamante ni. le président est-ce que utoo leen prétexte dialogue bi pour camoufler mbir yi. tamit non non mënuñu ko camoufler. parce que mhm. président moom moo woo les partis. Mhm. woo ñi nga xamante ni ñoom ñooy acteur yëpp. toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ci réew mi. ñooñu aussi tamit jox ko seen kàddu ba ñu mettre en place ce comité. comité bi depuis loolu mi ngi ciy liggéey. amaguñ conclusion yu net yu nga xamante ne tey jii nii pare nañ pour dem. élection. est-ce que du yéen a ragal. non ragaluñ loolu tax man la ñun élection bu doon suba suba suba suba ñun pare nañ pour dem. mais ñoom nee nañ deux mille vingt et un xanaa yéen mun ngeen ko tëgg ndax yéen a yor yéen yor jumtuwaay yëpp. yéen gu nguur dama ni. ñoom ñaaray am. Mhm. ñu jëlaat l'ancien fichier ñu dem élection deux mille vingt et wala ñu auditer. Mhm. tranquillement ba dootuñu amati problème mu audit fichier. Mhm. amati problème audit fichier bu ñuy dem élection. ñaara am ñu bay ñu liggéey ko tranquillement à tête posée. Mhm. wala aussi tamit ñu précipité ko dem élection avant. ngeen bu leen ci gën a avec l'ancien fichier ñun bu ci ñëw pare nañ ko l'essentiel est ñoo ngi liggéey ñoo ngi liggéey te boolewuñ dara ki wax aussi. Hmm. ñu ne seen mandat ñu koy yokk rek gars yi dañuy dem ba naan bi euh, faaw ñu parce que yéen. beneen bi aussi beneen bi aussi mooy. Hmm. parce que jàpp ñun élection doon na am at bi ñu génn. waaw tigi. mais avec la pandémie. Mhm. c'était li gën a yées vingt huit tey ci vingt huit bu ñu nekk ci la waroon am. gën ngaa yéex vingt huit mars. mais avec la pandémie. Mhm. avec la pandémie. Mhm. élection mënul woon am. te boobu aussi tamit est-ce que nekkul prétexte yéen di di di non parce que yow gis nga pandémie bi li mu def Sénégal. parce que tey jii nii li tee nit. jugee dëkk dem ba dëkk. Côte d'Ivoire amel na ci élection de. non dama man Sénégal lañ wax. li tee nit jugee dëkk dem ba dëkk loolu problème la. ñi économie bi ñi nga xamante ne fi ñu doon liggéey la plupart wàññi nañ leen mënatuñ fa liggéey. Mhm. kon loolu lu sérieux la. ñi nga xamante ne tey jii nii am na ñu nga xamante ne sax ñàkk nañ ci ñi nga xamante ne ñu leen gënoon jege la. Mhm. kon donc jàppoon nañ ni pandémie bi lu sérieux la. Mhm. te vraiment aussi tamit euh, état bi ñu ngi leen félicité dans ce sens. Mhm. ci vraiment jalon yi nga xamante ne teg nañ ko. Mhm. ndax metti woon na trop. Mhm. ba nit ñi bëggoon nañoo xàddi. mais yàlla dimbali nañu vraiment ba ñu ñëwaat. ñuy ñaan yàlla aussi tamit yàlla dimbali ñu ba pandémie bi ñu dàq ko complètement mu jugee fii pour que ñu mën a wéyal. bien vrai que mi ngi deltu ginnaaw tuuti. non mi ngi deltu ginnaaw tuuti moom. ñu ngi sant yàlla looloo tax aussi tamit vraiment ñuy invité aussi tamit. Euh, tout un chacun. Mhm. vraiment ñu dem vacciné wu ji. Mhm. pour que ñu mën a dimbali pour que économie mën a delluwaat. Mhm. vraiment fi nekkoon. mais aussi tamit di di di profité parce que wax naa économie foog ma laalaale aussi leen aussi tamit ñi nga xamante ni nañ seen emploi. ci manifestation yoo nga xamante ni jotoon na am. parce que j'avais des amis yoo xamante ni. ay Auchan lañ doon liggéey ñii feneen ak feneen lañ doon aussi tamit ñu ñàkk seen liggéey. vraiment ma leen ci masaw bu baax a baax a baax. njiitu réew mi ak milliards yi nga xam ne génne na ko da jàpp ne mën na soulager euh, ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di ut xëy ak euh, ñi nga xam ne jot nañ loolu la ci mbir mi mhm. mhm. Mhm. bu dajalee directeurs généraux yëpp yi nga xam te ne ñoom ñoo yor wàllum emploi ak wàllum financement ak wàllum formation juróom-ñeenti at ba tey bañ ko falee ba tey mënul régler xëyu ndaw ñi du Sénégal rek lañ ko mën a régler. même boo demee ba ci état yi gën a mag. am nañ problème mu xëyu ndaw. mais man aussi tamit li may wootee pour ndaw ñi. en tant que jeune. mooy aussi tamit waruñoo xaar liggéeyu état. war nañ mën a def seen formation. am na ñuy demal seen bopp de. nañ mën a def seen formation. génn taxawal seen i mbiru bopp. ba employé ay nit dimbali waale état sax ci loolu noonu. mais am na ñu bari yu ciy yëngu tey ndaw ñu bari ñu ngi créer seen emploi xaar ndimbalu état la ñuy xaar mais comme financement yi boo bokkul benn parti bii rek duñ la ko jox. est-ce loolu moo moo moo métti yëf yi. loolu mënul métti yëf yi parce que déjà euh, le constat est réel mooy communication bi manqué na. déjà parce que ndaw ñi xamuñu woon fan la ñuy jaar déjà pour am financement. Mhm. wala xamuñu woon fan la ñuy jaar pour am appui wala accompagnement. Mhm. loolu waxtaanee nañ ko. Mhm. ba ñu dajee réunion bi nga xam te ni fa lañ mujj daje. Mhm. pour que communication bi di gën a fës. Mhm. ndaw ñu di xam fan ak fan la ñu war a dem. ok loolu am na solo. xam nga sànq da nga dama la laaj. mais nangawuloo tontu ci mbir mi ba mu leer waaye léegi euh, comme équipe ngeen. ci bilan bu ngeen doon xayma jàpp ngeen ni yéen la ngeen tëgg ci atum 2014 ba 2019 euh, gi mu waroon jeex léegi yóbbu nañ ko ba 2021 kenn xamul kañ lay am. léegi yéen bu ngeen ñëwaatoon di laaj baatu askan wi itam du ngeen sëgg. non duñ sëgg. ndax def ngeen fa lu matee loo xam ne mun ngeen amaat beneen la non lu matee amul mais def nañ fa la nga xamante ne war nañ mën a laajaat. Mhm. te dinañ leen jox. population bi ay choisir mais de toute façon def nga xamante ni. Mhm. war nañ mën a laaj te aussi yamuñu ci ndax ñoo ngi continuer aussi tamit on a des projets yu nga te ni ça est en cours. Mhm. te incha dinañ ko réaliser avant la fin de l' yéen a ngi ci. des projets porteurs. Mm-hmm. Mm-hmm. yi nga xam te dañ ko réaliser avant la fin de l' année. Mm-hmm. allah xam nga laaj naa la sànq léegi benn question individuelle mais bugguloo ci tontu. te man li ma ciy recevoir bëri na de nee nañ euh, yow palaasu maire bi fi mu toog loolu rek mooy sa bët looy tontu ci lool. de toute façon li ma waxoon sànq. waaw da nga am nga ambition lan mooy sa ambition léegi. de toute façon li ma waxoon sa ambition sama hmm. ambition. Hmm. mooy servir le Sénégal. non ci biir commune Golf. sama ambition mooy servir le Sénégal. maanaam question bi question wala tontu bi moo kii maanaam yow mi Mouhamed Ndiaye premier adjoint maire bu commune bu Golf lan mooy sa ambition jël mairie bi jiite ko mooy sa ambition wala. de façon li ma la wax sànq. moom laa hmm. lay répété woon. ok je suis jeune. et j'ai de l'ambition. jiiteeg ñàkk jiite loolu yeggaguñ ci pour mhm. wax ko mhm. mais je jeune et j'ai de l'ambition aussi te am na loo xam ne yéene nga ko ci commune bi wala je suis jeune et j'ai de l'ambition ok comme bëggul avancer ci mbir mi <laughs> yaakaar naa ne dinañ ci ñëwaat tey ñu ngi ci njeextalu émission yi marché yi waaw xam nga dañu toogoon benn période bu métti boo xam ne ci coronavirus bi xëy na yéen yéen a ngi doon jooy sax wàllum euh, recouvrement yeeg bu ñu jëlee foofu koppar yi ngeen doon ñàkk xanaa léegi nag wàcce nañ mesure de restriction yi yéen a ngi jot ndàmpaay léegi xanaa. waaw ñoo ngi jot euh, suñu agent yi de ngi liggéey. Mm-hmm. mais marché yi itam jot na ngeen def ci ay sensibilisation itam. waa marché yi. Mm-hmm. ba ñu depuis euh, notre premier cas. Mm-hmm. marché bu ci nekk dote nañ la masque dote nañ la gel. yamuñu foofu. avec des partenaires locaux yi nga xamante ne nekkoon nañ fa comme mën naa ci citer euh, ONG Intermonde mën naa ci citer aussi tamit euh, Pencum Ndakaaru mhm. fédération mhm. mën naa ci citer yeneen ONG ñoom aussi tamit ñëw nañ ñu liggéey ci en collaboration dugg ci marché yi dugg ci mécaniciens yi mhm. dugg ci menuisiers yi dugg ci garage yi waxtaan ak nit ñi sensibiliser leen dote leen ay lavoir mais dote leen aussi tamit ay euh, jumtuwaay yu nga xamante ni vraiment dinañ ci mën a xeex mbas mi bu baax a mhm. baax kon mhm. voilà comme ni ñu ko defee ci école yi defee ko aussi tamit wax nga Gueule Tapée yéen a ngi ko doon réfectionné tey yéen ñaata marché ngeen am ci seen commune voilà au niveau de notre commune nous avons sept marchés fu ngeen di toll ndax euh, réhabilitation marché yi itam présentement ñu ngi am na solo ah. ñu ngi nekk di réhabilité te pratiquement sax pare na mhm. mooy le marché de Fenwick marché Sëñ aussi ñu ngi ciy waxtaan pour réhabiliter parce que daaw lañ ko doon réhabiliter mais daaw pour liggéey dafa jafe woon. Mhm. parce que toog nañ un an yu nga xamante ni liggéey ko dafa jafe woon. mais ñoo ngi ciy waxtaan. Mhm. le maire mi ngi ciy waxtaan ak ñi mu ci war a waxtaanal avec les techniciens. Mhm. pour que boobu aussi tamit ñu démarrer ko le plus rapidement possible. pour le marché de Taïba. boobu aussi tamit defar nañ ko réhabilité nañ ko bu baax a baax. ba boo fa demee di nga xamante ni fii marché la. alors Mohamed Ndiaye presque. Euh, ñu bàyyi la nga continuer actuel ah, léegi mhm. marché Gueule Tapée aussi tamit ñoo ngi ciy waxtaan mhm. parce que marché Gueule Tapée bokkul woon ci suñuy domaine de compétence yaatu na de avec l'acte trois si mhm. la ñëw si suñuy loxo mais marché boobu est-ce que jotul ngeen defaraat ko itam ndax li muy génne ci koppar bari na de. waaw ñoo ngi ciy waxtaan xam nga nit ñi ñoom ñooy xayma rek naan li muy génne ci koppar li muy génne ci koppar. kon léegi yow wax ci koppar xam nga nit ñi souvent dañuy xool rek wala ñu muy regorger na lu muy regorger bari na trop. <laughs> mais marché bi ñi fa nekk ñëpp la hmm. plupart dañuy gis ci kaw tali bi rek ngeen gis te ñoom ay noonu bu ngoon jotee ñu dem ay ambulant lañ amuñu place hmm. li muy bari bari bari yëpp souvent nag erreur boobu nag la nit ñi di def ndax dañuy gis nit ñi ah, est-ce que jotul yéen tamit ngeen am ngeen taxaw ci liggéey ci tamit nekk ba ci kaw tali bi mhm. ñu jàpp ne lii yëpp ci marché bi la mhm. alors que ñoom ñëpp c'est des ambulants mhm. ñi dañ leen di ci marché dugg fii nii wala ñenn ñi nga dàkkee leen ci marché bi ñu dem dugg ci marché Padois pour mu dakk lan ngeen ci prévoir prévoir nañ def fa ay cantine mais mën mënaguñ ko fa def tant que euh, tali bi war a jaar noonu dem ba ci euh, croisement Cambérène defaguñ ko parce que bëggoon nañ ko def mais Ageroute lañ doon bañ vraiment ñu empiété ci ci ci ci ci ci yoon bi. Mhm. moo tax ñu buggoon leen xaar ñoom ba ñu pare. Mhm. pour que vraiment ñu def ay cantines au niveau de de la devanture. Mhm. nga xamante ni kenn dootul nekkati ci kanam. ci kanam yëpp ay cantines moo fay nekk vraiment bien organisé ko émission bi jeex na. ah émission bi daa gàtt. waaw dafa gàtt dafa gàtt. <laughs> en ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax moo xam Mouhamed Ndiaye ñu bàyyi la rek sa kàddu gi nga xam ni euh, ñu bàyyi la nga gërëm waa commune bu Golf. voilà donc di di gërëmaat encore une fois Mbemba ma lay gërëm bu baax a baax. jërëjëf ñoo bokk jërëjëf ci ci invitation bi. Mm-hmm. mais di gërëm aussi tamit euh, toute la commune de Golf Sud à sa tête euh, l'honorable député maire. Mhm. vice-présidente assemblée nationale. Mhm. day gëj commune ba waaye fexe nga ba fàtt ko rek. non elle est toujours présente nag. Mhm. bu ñëwul tamit xelam a ngi ñëw xalaatam mi ngi ñëw. vraiment voilà mi ngi ñëw quoi elle est toujours présente. beneen bi mooy di sant vraiment waa commune bi bu baax a baax. di leen ñaaxaat encore une fois vraiment pour que ñuy gën di jege la municipalité. parce que municipalité bi boo ko dul jege. doo mën a xam lan ak lan la ñuy liggéey. doo mën a xam lan ak lan def donc ñu leen di un appel vraiment à ce que les conseils de quartier aussi tamit toutes les informations yi nga xamante ne am nañ ko au niveau de la commune ñoom aussi mmh. yi nga xamante ni am nañ ko. Mmh. ñu koy mën di wàccee ñëpp di ko mën a partager ndoo mmh. di ñaanal vraiment ñi nga xamante ni ñëpp génn nañ àdduna ci mbas mi aussi tamit. Euh, yàlla xaare leen àjjana. Euh, ñi nga xamante ne aussi tamit dalagu leen. Mhm. yàlla aar leen vraiment ba loolu aussi tamit du ñu dal. Mhm. di ñaan yàlla dal ñëpp ñu mën a jàpp ci la commune de Golf Sud. Mhm. pour que mu mën a avancer. malgré que mi ngi avancé mais mu gën a avancer. te loolu aussi tamit dañ koy ñaan képp ku yeewoo Golf. di ko ñaan aussi tamit les partenaire di ko ñaan ñëpp ñu nga xamante ne ñoom lañ fa nekk. di sant ñëpp. di gërëm ñëpp. Hmm. vraiment di le remercier waat encore une ci invitation bi. jërëjëf di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala. jërëjëf Mouhamed Ndiaye premier adjoint bu commune bu Golf du ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax di sant itam ñi nga xam ne rek ñoom la àndaloon doon ñëw fii tey ci émission bi gërëm sama technicien bi nga xam ni moom moo nekkoon ci xarale gi jox leen dig daje beneen dimanche beneen invité fii ci rajo Rewmi FM.